ta nak topal rek yow dina fi ñuk rombu dem yow nga des ak boba yow kasse nga wet ci lolu jema la changer nak ta and ak ñun lima lay wax xamna ko de xamna bu baax lima lay wax nekkal nit nak du japp la nekkal nit bu ñu rek ngay watar ba nak di togaanu ta wala ñew tok suñu wet di def li ñi def nangu won da warona nangu dafa warona nangu pour lan muy bañ mom lan moy ndey muy bañ yo sa jaay dafa salté sa jaay bu duggee ci dusu def ci lu vol neex buy añ melni kuñ kuñu yarul makoy wax ngaan sa jaay dina ko may jam pour nako may jam mel ni bu ndaw wa yow xam lan la lay xam la sama nijaay nak ding ko may jam lan ngay waxal dama ne nga jug bu dina la mus ba nga dugg jugal la wax duma wax nga ci teg ba tak fa duma sam sa morom jugal ci jugal la wax bala ma lay pes acca romba sama loxo yi dépêche-toi ma ma ma fexe ba nga am jabar ah tey nga ma mun a cakaw nga ñëw si kër bi am ay photo am ay mëki photo yu yoo xam dañu la ko sarax sax nga may jaay affaire ak di ma jaay neex faalewu ma la. d'accord merde. te dégg mille fois merde. waaw baax na nangu naa nag lu mu lekk. waaw.